Diop Taïf Lamine Bara Diop di nuyu population wu Taïf yëpp nuyu la jeunesse de Taïf nuyu ñi fi teew ñëpp nuyu les gendarmes yi nga xam ne ñoo assuré sécurité bi depuis ce nuyu chef de service locaux yi fi nekk yëpp suñuy kàddu bëgguñu woon sax jël kàddu waaye xëy na dañu ko forcé waaye nag li may wax rek mooy kontaan nañu trop ci tournoi bi nga xam ni sauvé na nawetaanu Taïf tay ndax bi nit ñi ñëwee sama bureau bi ma waxee tournoi bi dama ne leen dinañ leen accompagner ba ngeen def seen tournoi waaye nag nim ñuy neexee ñu teew bi di leen sant di leen gërëm ci organisation noonu la ñuy naqadiwee tamit ba léegi Taïf mënut a am zone bu nga xam ni dana bokk ci ODCAV li tax mu ñuy naqadi mooy gani ni jeunesse bi jéem nañ leen daje dajale mu nekk waaye tey li tournoi bi ku ko xool xam ni jënes bi war nañu xam ne dajale bu ñu dajee lu ne mën nañ ko loolu lan leen di ñaax ñun suñu teewaay fii nag dafa fekk ni ñin ko séqal ñu boole ñu ci muy ku mel ni ki ñoom Abdou Thiombane sëñ Mbaye Lo ak jeunesse bi yëpp ak Diop Taïf ñu nekk nit ñu nga xam ni jëflante nañoo ak ñoom ci diggante bi ku nekk di déggal sa morom ba lii mën a am te amul benn réeróo di ñaax yeneen jeunes yi nga xam ne ñu ngi organiser lu mel nii ñu roy ci lii ba nga xam ne ñoom it dinañ yegg fi ñii dégg te du am benn coow di ñaax waa dëkk bi ne leen lu mënti am xëccoow ak lu ne lu mënti am lenn mooy objectif wu population wu Taïf yëpp mooy ñu booloo jëmale dëkk bi kanam loolu rek moo am solo foo mënti bokk amul solo mais nanu booloo ñu xam li nga xam ni réellement moo mën jëriñ dëkk bi ñu def ko ngir dëkk bi jëm kanam ndax dëkk bi du sunu dëkk ñun ab dénkaane la bu nga xam ne yéen a si toll tey muy jeunesse bi ngeen toll ci di ko def te da ngeen koy weesu war a bàyyeeg seen i rakk lu nga xam ne ëllëg ñoom danoo war a ñëw fekk fi lu gën lii te boo leen ko yàqee nag seen i rakk duñ fi fekk lool di leen ñaax bu baax di santaat bu baax ñépp di gërëm ñëpp di leen ginnaaw bi ñu sante Serigne Touba ñaanal xalifa général des Mourides mu yàgg fi loolu te wér ñaanal sëñ Abdourahmane Mbacke mi xam ne mooy xalifa Taïf xalifa si sa genn fam dina ñaanal si Moustapha niveau ji ak mboolem kilifa diine. lii nag ak sant yàlla la sant yàlla gi ci sant yàlla mooy lii gëj na am tayif final bu toll nii gëj na am tayif lool. kon suñu jëmm ju xeebu ji suñu ñu ko tànnee ñu tuddee ñu ko ñu jël lépp joxaat ko Sëñ Cheikh Thioro bu député dañ ci sant yàlla parce que du début à la amul lenn luñ manqué mboolem ASC bu bokk ci tournoi bi jox nañ la maillot paire maillot paire maillot ba xam ni 18 maillot la ak 18 ba ak benn bal paire maillot yooyu loolu su ma ko tuddee kenn ku nekk presque jox nañ la quatre-vingt-cinq mille mu nekk douze paire maillot. ñu ñëwaat encore ci final bi ñu war leen joxaat yeneen dix paire maillot dix paire maillot encore ak bal mooy mboolem équipe bu ci bokk am na équipe xam ne sax bokkuñ ci am na dëkk yi xam ne amuñu équipe dañu leen fas yéene incha allah jox leen maillot jox leen bal. te loolu su amee. dama ji sant Khady Diène Gaye sama yaay ministre de la jeunesse des sports et de la culture mais loolu lépp jëmmi si Cheikh Thioro la c'est-à-dire ñoom jàpp gi ñu ma jàpp tey jii li ñu commencé mooy visite médicale consultation gratuite vingt cinq médecins spécialistes tey ñoo ñëw Taïf faj presque trois cent et quelques patients am na ci ay ophtalmologue ñoo xam ni dañ la war a opérer problème cataracte lañ am ñu war leen opérer ji Touba duñ fay dara tey képp kuñ consulté jënd nañ la jox nañ la garab te jëndoo ko. ndeysaan boole ceeg matériel bu mucc ayib matériel médical boo xam ne mës sa am. ñu jox ko aussi hôpital bi. tey loolu dañ ciy sant docteur Cissé mooy directeur général de la santé publique ak docteur Seydou Diallo directeur de la pharmacie d' approvisionnement mais loolu lépp ak docteur Thior ak aussi. docteur yi ñaan Pastef santé ñi nekk si département bi kon loolu si amee daal jëmmi si Cheikh Thioro du ma ko ci génne du début à la fin moom la moo nekk du début à la fin samay activité parce que man président Ousmane Sonko moo ma boole ak moom ànd gor lañu ànd ànd gor ànd gor lañu ànd c'est important ànd googu politique moo ko moo ko sooke waaye dem nañ ba xam ne maa moom ay frère lañu. te loolu it Ousmane Sonko moo ñu ko ji kon lii siñ Cheikh Thioro def. dañ ciy sant bu baax aussi mi ngi ànd ak mobilisation bu extraordinaire parce que départemental kenn desul ñëpp a ñëw gis naa fi sëñ Assane Mbacké gis naa fi Serif Diop gis naa fi kii Baye Djili Gaye kon li xam ne ni mooy la crème de Pastef départemental waa Ziguinchor Madiaw Faye Madiaw def lu extraordinaire finalu kade bi moom nañ ko parrainé mu taxaw ci taxawaay bu am solo moom envoyé chargé de mission la à la présidence kon loolu su amee ñun mënuñ lu ci di ci réjouir mais aussi nag di sant waa mouvement de l'amitié mooy Abdou Thioman ak sëñ Maylo ñàkk sikk ak Ali parce que ñoom ñoo organiser lii tey kon lii su amee dañuy sant parce que jeunesse su Taïf jeunesse bu am jom la jeunesse bu bëggante la mais dama leen wax nañ moytu ñu nax leen. li am tey jii presque mën naa wax ne huit million la presque huit millions mobilisé nañ. huit millions mobilisé nañ ko tey tey ci consultation gratuite bi. consultation gratuite ci appareils médicaux yi xam dañ koo may hôpital Taïf ci final sport bi final bi école football bi nekk Taïf sax dañ koo may ay trophée dañ koo may ay gilet dañ koo may ay jumtukaay école football bi nekk Taïf mboolem équipe bu ci bokk jox nañ leen mayo bal ak ay trophée ki gagné. dina am cent cinquante mille kiñ gagné dina am cent mille franc carré bi ki gagné amoon na cinquante mille kiñ gagné am na vingt cinq mille te kenn ku nekk am na paire moyen ak bal loolu mës ta am Taïf loolu nee na mës ta am Taïf léegi dama bëgg yéen waa Taïf ngeen delloo njukkal le président Ousmane Sonko delloo njukkal ngeen njokk delloo njukkal président Ousmane Sonko mooy au soir du 17 ñu am ndam am une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale parce que nguur mooy defar am réew pouvoir mooy defar am réew opposition moo defar am réew te ñi leen di wax wala di daagal seen i baatu askan nekkoon nañ fi defuñ dara ci dëkk bi kon nag politique ndaw moo koy def Serigne Mbacke dafa waxoon am solo ci dëkkam bi ne damaa am yaakaar ci ndaw yi damaa yàpp ne ndaw ñooñu mu am yaakaar am Diop Taïf ci la bokk Pastef Taïf ci la bokk maa ngi gërëm nag la famille Pastefien Pastef communal nuyu Pastef Taïf ñoom ñëpp góor jigéen mag ndaw gaas mbaw musib ñoom ñëpp maa ngi nuyu Moussa seen Magu Pastef ñoom ñëpp maa ngi nuyu dina ziar maa ngi nuyu dina ziar baax a baax baax di sant aussi samay frère samay xarit ku ñu mel ni Moustapha Diop ku ñu mel ni Ndiass Ndoye ñoom ñëpp maa ngi leen sant bu baax seen taxawaay rafet na trop maanaam maa wax nañ focus nañ gagné élection yi avec une majorité absolue comme ni ñu defoon si élection présidentielle yi si Cheikh Thioro c' est l' incontournable c' est le leader incontesté du département de Mbacké loolu la yàlla def sama nijaay jii nag di tonto jébbi si la maa ngi koy sant Suisse la jógee Suisse la jógee dafa bàyyi li doon def lépp ñëw di jàppale jóge ba Suisse waaw parce que dana yéen samay samay rakk ngeen samay jarbaan ngeen xam naa dëkk bi rek moo leen ñor kon tonto jéb maa ngi lay ziar hmm. à votre image maa ngi sant la diaspora tey fois Assane Ndiaye tonto Jili Gueye Pape Niass Omar Sène ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax aboloo ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax daa diaspora tey amuñ seen fay kon daal nañ focus au soir du 17 ñu am une majorité absolue yaa ngeen incha